loolu daa am kilifa goo xam ne boo sañoon rekk tabarkalla muy dund ba faw waaw góor gi kon daa ma mbay dina ma ko faral di ñaanal waaw dina ma wax ni bés bi ngay wuy ji sa borom yal na àdduna tukki ma ni ko du ko tax a tukki kay nag wax naa ñaar lu ñu yéene rek